F24 tasaara na fële nga xam ne mooy place de l'Obélisque léegi lañ ko def donte mbir maa ngay wéy di baraj baraj fële ci li wér Médina ak Colobane tey jii la nga xam ne moom la fa gars yi doon dajale di manifestation boo xam ne autorisé nañ ko waaye la fa teew ci mbooloo daanaka moo tiital gaa ñi la fa teew ci mbooloo moo yim ñëpp foo sànni mbatt mu toj leader yëpp ñëw taxaw daanaka bam de a ki nga xam ne moo fa taxaw teexaw taxaw gaa yi tey mu yor bës bi yor li nga xam ne mooy lépp a jaawale ne mooy ku sell ki di Seydina Ousmane Sonko ah, tey it moom daja a ah, ñëw fa woon ka ko fa ñëwal di ki nga xam ne ah, daanaka mooy daanaka moom la toftal ci boppam tey it di lom confiance am bi nga xam ne moom la dëbbar ñi teg ko ci kanam moom Ousmane Sonko mooy ay gëtam moo koy xoolal a it xam le na ni daanaka la ko tax a ñëw mooy foofee daanaka xolam bu naqari a it xolam bu naqari moom mii di Malick Ndiaye xam na ni yéen sénégalais yi lépp li nga xam ne moo naqari xolub daanaka soriwul ca mbir yooyee ndax discours la def ah, boo xam ni ah, bu gàtt te am solo te xamal gaañi ni ah, président Ousmane Sonko mi ngi seetaan en direct te mi ngi bàyyi li xew fii ak gaañi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko taxawaay boobee gis na ko te kontaan na ci bu baax a baax keneen koo xam ni jël na fa parole di Papa Djibril Fall mi nga xam ne laal na micro bi gars yi ni ko wuub yuuxoo ko yuuxoo yoo xam ne daanaka naqari na képp koo xam ne yaa nga fa woon ci peggub sa télévision wala nga kal ko ci YouTube bi ci ñi nga xam a dañ koy ñaaw ñaawlu waaye nag mu nekk loo xam ne a koo sànni ab message boo xam ne ñi ko ko sànni lolu ca jublu moom mu xam ne daanaka na xam fi mu teg tànkam fa mu jëm na ko xam ndax bu fekkente ni a dil la am ak ki nga xam ne mooy président de la république ma nga koy yàq ndax gaa ñi xam na ni fi mu toll nii fi mu teg seen tànk dëgër na muy Ousmane Sonko mu doon président loolee daanaka mooy mébétu ñi nga xam ne ñoo ëpp ci biir sénégalais yi loolee nag daanaka yónni la ñuy yónni ni ndax dana yàgg ndax du yàgg loolee ngeen bàyyi xel li nga xam ni mooy xew ci avenir soutenir waaye cant ak ngërëm ñeen na leen ci li nga xam ne mooy seen télévision bii di Aladji Malick TV waaye bi ngeen koy taxaw ak ceetaa mi ak abonnement yi nga xam ne yéen ngi koy ba dabban ñi cant ak ngërëm ñeel na leen encore une fois